Sénégal gi yëpp di nuyu ñu fi toog yëpp ci nekk turam ak santam di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu ñaari champion yi di nuyu ministre Abdou Karim Sall di nuyu tamit sama papa yu mu fekk mel ni Père Bourkhane du nuy ñëpp ku lim da ngay juum dem contentement nag bu rëy rëy yaakaar naa ne nag maa ngi soog a am làmb parce que ku xam euh, drapeau Abdou Karim Sall xam ni drapeau bi moo sell ki tegu combat bi di Ibou bokk suma staff ñu bokk dëkk Pikine mu nekk suma frère moom dañoo bokk ndey bokk baay kon Ibou tamit aussi bésam suma bés fa ko xam Eumeu xam Ibou di nuyu nag waa mbaaw bi yëpp di nuyu àdduna bi yépp di wax waa mbaaw nag am nañ chance bu rëy càbb kër mi sàll maire bu mu doon biir mbaaw nañu xoolaat mbaaw fii ak un an deux ans nu muy men fekk am nañ borom jom am nañ liggéeykat am nañ nit ku yaatu dënn am nañ góor dëgg nit ku direct nag nit ku am diine muy Abdou Karim Sall kon bisam suma bis la may wax ni nag waa axlu làmb yëpp di wax fépp supporter nekk fépp fans nekk Eumeu Sène dina génnee bàkk bu bees tàkk le 22 incha allah tuddee ko Abdou Karim boobu moom <laughs> incha allah. Mbasa jaaraama Géol Mbaay kooku nag tamit lu wax wàllu dëgg dañoo yàgg dépp ci jamono yi simb si ba léegi mu nekk vraiment borom baax xam naa ko bu baax a baax a baax waaw du nuyu Garga 2 nag bu baax ak Malamine ñoom ñaar nag Mama Lamine ñoom ñaar làmb dafa am fu leen di séntu Garga 2 moom ku ne xam ne ni champion bu mag la mu nekk xale bu am yar tamit aussi du sama rakk Mama Lamine tamit aussi vraiment nekk na champion bu mag a mag a mag a mag doon ko am kon tamit aussi dama leen di wax ni làmb du ngeen ay ennemi adversaire ngeen ñu gérer ko ci esportivement waaw yàlla def jàmm ci bis bi ku ci yàlla may ndam rek nga xam ne noonu la ndam lu gënu Sénégal de sant ñëpp nag du ñëpp mënu wax nag mais nag tey foog ma forcé wax parce que Karim Sall vraiment dafay nag koo xam ne kenn la ci man day sonn nag ci man bu baax sama combat di ciy jàpp bu baax ku mu xam ni xam naa la sax nga nekk mbër da ciy jàpp tey rek dem na ba ci bàyyi ma njoon jàppale ko di nekk koo xam ne dafa ku gëm sport la Abdou Karim Sall ku bëgg làmb la parce que man damay toog ak moom lu bari ku gëm sport la ku gëm làmb la te gëm sa culture dëkk mooy gëm sa réew ñàkk gëm sa culture dëkk mooy ñàkk gëm sa réew Abdou Karim Sall ku gëm sport la ko ko bëgg la kii jàppale tamit aussi jeunesse bi la jeunesse su mbaaw bi yëpp utal na leen liggéey ñëpp ñëpp ngi bàyyi seen waar yàgg na jàpp ci jeunesse bi yàgg na jàpp ci xale yi ñu ut ñu am métier di liggéey te nekkul maire kon nag bu nekkee maire suñu xel day dal waa lamb te ànd ak mbër yi dañoo war a xoolaat seen bopp. waaw surtout Mama Lamine. Mhm. geste def li mu def nii ñëpp ko war a rafetlu te ñu ko war a rafetlu ki ci war a jiitu mooy Garga 2 parce que Mama bu ko jaralee mu dem ba jàppante ak ñi mu àndal parce que mbaxana Garga 2 la këf loolu yaakaar naa ne tey ñëpp ko war a rafetlu li mu def nii geste noble la parce que wane na ni jàmbaar la. affaire bu du fii ñoom ñaar la arène nationale le 22 mai. foofu la ñu wane seen bopp. dafa am étiquette yoo xamante ne bu ñu la ko collé da ngay moytu su ko waa Garga 2 defee ñu yoon bu ko waa Mama Lamine defee defuñu yoon dëgg yàlla moo ko moom. te lamb maanaam wax ci dëgg dafa metti boo waxee dëgg ah. ñuy mer de gauche à droite da ngay dem ba toll foo xamante ni ku mer sa affaire lay doon lu rafetul ci lamb. ku ko def dañ la war a dénoncer ñëpp yëg ko wasalaam Mama Lamine jege si. bisimilah. aco ñu ngi bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyu amateur yi. jërëjëf Lamine. alhamdulilah bisimilah na wala yàlla jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul sant yàlla bu baax di julli si yonent bu tedd di gërëm suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ si Abdourahmane Mbacké la ko fi yàlla bàyyi mu yàgg loolu ànd ak wér di nuyu bu baax a baax ak taawam Soxna Mbay di nuyu sëñ Sidi Mbacké alxuraan borom jàmm gën borom Sika Mbaaw ak maam Cheikh Anta Mbacké di aussi tamit sëñ Fallou Fall sëriñu Tarki Ndaay du nuyu nag waa jàmm waa Sika Mbaaw fi ma jógee di waa Mbaaw gi ma fekk di leen jox seen wàccuwaay di wax Garga nag maa ngi jéggaluwaat bu baax baax a baax li tubaab naan l'erreur est humaine loolu moo ñu dal li may may ndam nekkul ci laafa Garga nekkul ci yéreem nekkul ci tubéyam kii li koy daan jom ak njàmbaar ak fulla ak te loolu laa liggéey ba mu mat sëkk ma nag jàpp na jàpp ni li loolu noonu ñu ko def man duma ko def kon nag maa ngi koy jéggaluwaat bu baax a baax a baax loolu am na solo tàccu leen ko Garga ngi waaw Lamine ñu ngi nuyu mbooloo mi fi toog ñëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi ñaanal suñu ñaari waajur yal na ko suñu borom yërëm te xaare leen ci àjjana. amiin incha allah sama adversaire nag maama Lamine di ko wax li mu wax rafetlu naa ko. waaye dafa am loo xam te ne Ibou Seck moom waru ko def parce que moom grand la bu ko xale yi defoon du ma métti de waaye moom grand la am na loo xam te ne waruñu ko sama mbax na moom comprendre nga waaye nag loolu am solo loolu daanul mbër comprendre nga di rafetlu ministre bi di la nuyu bu baax di la jox sa wàcc di di la wax ni li nga xam ni moom la suñu borom jox muy grade maire suñu borom dina la jox lu ëpp loolu parce que yàgg nañ dégg sa jàppale ci ñi nga jàppale mbër yi di la ñaanal yàlla may la fan gu dëgg gu wér lépp looy yootu ci politique yàlla na la ko suñ borom defal ci barke yonent bi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal na ku ci mel ni Fallou Gueye Aline Mbengue sama grand maire na waaye xolal loolu du dara ci làmb di nuyu Serigne bi nga xam ne moom laa àndal du nuyu mbooloom ñëpp ku nekk sa tur ak sant. jërëjëf du nuyu tamit promoteur bi quoi Ibrahima Diop di ko wax ni làmb ji wax dëgg yàlla li ci des bëreetul di ko ñaanal am réussite totale. ci barke yonent bi sallallahu alayhi aja maama nga ne moo koy daan. Ah, fit fulla fayda loolu yëpp daje na. loolu moo des ci àdduna. nit ki looy ut loolu ngay ut fulla ak fayda jom fit ak ngor. Mhm. maa ngi nuyu nag monsieur le ministre Abdou Karim Sall. Ah. Sall ngaari lam toore pour ah. baax a baax. Ah. jaajëf Olof Ndiaye nee na nettali ci gémmiñu borom dafa am loo ma waxoon. mooy bi ak ligne bi ah mais sa gars yi yoruñu ligne de. non képp liir yëpp di ko gis insha Allah. kii ngay weer. dama koy fóot ba mu set jox ko gars yi ñu weeg ko si ko. moom nag nee na ko. wax ko mu ngi ma ni. kii li ko wax rek looloo ci nag bu jëm seeraas. waaw gaaw dee yéex dee. ñaaw dee. moo xam dee daal dee rek. moo xam lu jiitaan. nag bu jëm seeraas. man du ma nag bay dem seeraas. doomu aadama la comprendre sport de combat la nekk am na lu ma ko waxoon. Hmm. le 22 mai incha allah rabi bu ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla dina ma mën ndam ci kawam. jël bu set wecc bu amul benn werante. foo ko teg da nga ëpp doole wala da nga koo non lu ma liggéey la waa jàmbaar Wrestling Academy yëpp di woowaa parcelle gépp 1 ba 26 di nuyu sama papa Abdou Karim Tunkara ca Italie di ko wax ne ko combat nga ci ñëw jàpp bu baax. waaw ne ba nga wax sa adversaire ba pare. non Maama Lamine champion la xam nga lu ñu ciy wax rek dañuy waxaat rek. képp combat bi li ci des bëreetul une semaine moo ci des. di ñaan yàlla defal ko wér yàlla defal ma wér ba le bis ba yàlla may ma ndam ci kawam. Mhm. jël bu set wecc bu amul borom kenn werante. mobilisation xam nga que promoteur bi ci billetterie rek la yaakaar est-ce que xam nga li promoteur bi di xaar ci yow le 22 incha allah. waaw xam nañ ko moo tax ñu déplacé wu ñëw fii di wax nag monsieur le ministre. waaw combat bi dañoo bëgg nga jàpp ci bu baax surtout côté mobilisation mi sama adversaire Mama Lamine nga jàppale ko. Mhm. nga jàppale man aussi. parce que stade bi dañ ko bëgg a duy ba mu fees ba boo ñëwee taar bi macha allah foo ko natt weesu ko. caméra yi nga bëgg nañ nga jàpp ci bu baax a baax dama bëgg stade bi fees dell nga jàppale ñu ñu mobiliser wu. du stade ba mu fees ni nga may jàppale nga jàppale ko sama adversaire Mama Lamine. waaw ñu def fulla ak fayda nag yàlla may ñu ndam su bis ba. incha allah jërëjëf yow tamit fan ngeen toll tarkindaa yi fi ñu amee mais ñu ngi ci wàccaay rek comme d'habitude ci liñ nekkoon jiguñu ci comprendre xanaa dañuy woote waat rek soññewaat ñi nga xamante ni ñoo ñuy bëggee ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal ñuy suñuy xarit ku ci mel ne waa tarkindaa yi ñu ngi leen di woowaat ci làmb ji baax a baax ñu woo waa jàmm gën gi yëpp yëpp yëpp si Kaab Mbaaw Télimaam Jaara yëmbal guy ga ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi sa open press kañ la mercredi incha allah rabbi le 18 ñu ngi ciy woo ñëp boulangerie si Kaap Mbaaw bi fu mu daan amee monsieur le maire aussi tamit comme li Garga wax rek ñun nous sommes de jeunesses xale lañ te daam am ñoo xam dañoo toog suñu ginnaaw yaakaar bi te nit nag buñ la yaakaaree boo mënoo ñu nekk sa ginnaaw ñoo la war a jàppale te ñu ngi koy ñaan aussi tamit mu jàppale ñu bu baax a baax a baax te xam ne bu ko defee ay doomam la ko defal su ko deful ay doomam la ko ñàkk bañ a defal kon ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla kàttanal bu mu mën jàppale dara euh, am lu ci moom. baaw di nuyu departement de Pikine di nuyu bu baax képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci sunu sport national muy làmb di sargal bu baax a baax ki fi jóge léegi di sama nit sama xarit Eumeu seen waaye dinaa remercier bu baax Ibrahima Ibrahima maa ngi lay sant bu baax. maa ngi lay sant ci cër bu rëy bi nga xam ne yëkkati nga ko teg ko sama loxo cër bu rëy bi nga xam ne yëkkati nga ko teg ko sama loxo damay sant bu baax sabab bi xam nga ni champion ci li nga yëngatu ñëpp xam nañ ko promoteur bu mag a mag nga donc loolu ku mu doyul dara du la doy bés boobu incha allah bésu Sénégal la sunu bés la bu soobee yàlla ñu ngi ñaan ñu teewee ko ci jàmm ak salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu presse bi di nuyu Garga ak Mama Lamine di nuyu staffu Kajoor production bi yëpp di jul nuyoo bi di ko teg ci loxo suñu papa Bourkhane mu jàllale ko ci ñoom Mbaye Diallo Cheikh Ndoye Baye Zandir ñoom ñëpp nag li ñu def nii dañoo dëkk ci gox bi bu ñu dëkkee ci gox bi ay doomu Pikine lañ tey mënoo ne Pikine te tuddoo Mbao lépp ci département bi la kon nit ñi li ñu gis mooy li monsieur le ministre di def biir mbaaw nee naa leen Abdou Karim Sall nekkul Abdou Karim sàll bu mbaaw nekkul Abdou Karim Sall bu Pikine Abdou Karim Sall national la ndax jeunesse sénégalais moo ko fi moo ko fi baax ak li nga xamante ne moo ñor Sénégal moo ko fi baax appel bi may def mooy dama nekk doomu département bi am position bi ma taxaw ci département bi te ñi ma seqal département bi xam nañ ko amul benn leader bu mu mus a taxaw ne dama nekk sa ginnaaw maa ngi lay jàppale musul am waaye jël naa sama décision lépp lu mu nekk maa ngi ci. dëgg lu mu nekk maa ngi ci lu mu nekkul nekkuma ci. Ah, décision bu te la preuve en élection yi ñu jëm incha allah dinaa jël sama oto yi ma am defar samay tiset ànd ak moom liggéeyal ko mu am fi lu kawe njottam ci département bi. waa Sicap Mbao yëpp waa Télimam Diarra waa Guy ga waa sa xiir yi te te Fass ñëpp maa ngi leen woo waa Guy ga waa Thiaroye Asir Thiaroye Géej yëmbal Fora jaay ko te yàpp yi jaay ko te ngooñ ñëpp maa ngi leen di woo si bis bi. comprendre di woo di sant tamit garan laay borom saal def sport maa ngi koy sant bu baax a baax ak sunu coach su bolo di nuyu waa Lamsaar bu baax a baax di nuyu père Max Mbargane ak per Moussa comprendre nga di nuyu ñoom ne ko ñoom fëgala senteel ñoom ñëpp maa leen di bëggee di nuyu gars yi ma àndal ñoom ñëpp di leen sant bu baax di wax nag gars yi nañ gën a génn ñu jàppale monsieur le maire parce que il mérite. làmb làmb ku ko bëgg. ñu bëgg la ku ko bëggul bëgguñu la. ñun làmb lay déglu ma fii ma wax la ah. ñun làmb lañ am te kii nii barki Serigne Fallou Mbacké li mu wax ba ma ne ko man sax ànd naa ak yow loolu moo tax ma ànd ak moom ku bëgg làmb rek ñu bëgg barki Serigne Fallou waaw te nag ñu ngi koy ñaanal jàmm ñu ngi koy ñaanal yàlla maire dafa tuuti un jour viendra dina doon président de la république na gëm boppam rek fu mu teg tànkam mu teg ministre mun na doon président de la république loolu lañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla def combat di nuyu jàmbaar yi ma àndal jël nuyoo bi yëpp teg ko ci loxo taqe comprendre ak Serif ñoom ab Seck gars yëpp maa leen di béggee bu baax a baax ñoom Mata Cuuj Karbala su dee ñëpp maa leen nuyu. jërëjëf. waa sas inde 4 inde 3 Cambérène 1 Cambérène 2 ogo ogo yi bàyyuma kenn di woo tamit Mbawar Mbawar di wax ni làmb ji dimanche la na ñëp pàkk yëpp nañ tëj seen place yi ñëw ci stade bi ñu bëreeg Maama Lamine daan ko jël bu set wecc bu amul benn werante di nuyu waan Ndaan xam nga li ma di nuyu sama benn papa boo xam ne dafa may jàppale sama papa Yaram Gueye di ko ñaanal yal na ko suñu borom defal jàmm père Yaram ñu ngi koy wax ni kontaan nañ ci jàppale bi. di woo monsieur le ministre di ko wax ni combat bi jàppale mbër yi bu baax a baax parce que mbër ñu ngi sa ginnaaw di ñaanal nag ki xam ne mooy promoteur bi yal na ko suñu borom defal réussite totale te ñu sant ñi xam ne ñoom laa àndal di sant sëñ moor di ko wax ni na jàpp ah. sëñ Saliou Ndiaye di wax ñëpp nañ jàpp képp koo xam ne yaa ngi may ñaanal rek gis naa di sant sama dëkkandoo yi parce que gis naa ni ñu sonné ci combat bi di sant ñëpp leen wax jaajeen jëf merci beaucoup. jërëjëf kontaan nañ ci bu baax. bàyyi sant baay bàyyi jili yam li xaar. Tarkinda koy sant bu baax a baax a baax. bàyyi jili waaw maa ngi koy sant moom jàmbaar la ko.